asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jiital ci nuyoo beeg ziar bi saaxibul fadila wala sila siyaah Muhammadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ko ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba gi mbokk yi kon euh, gis ngeen ne tey ñu ngi fii ci jumaay Touba jumaay Xaadimal Moustapha ji nga xamante moo nekk fii ci Touba euh, bi ñu nga xamante mooy daaira mu Xaadimatul Xidma ñu fas yéene waxtaane tey jile euh, bërëb bi nga xamante ne fi ngeen gis ñu nekk fii ci bisub bi nga xamante ne moom mooy bisub njàngum alquran mi bisub njàngum xasida mi waaye bisub njàngum salaatu ala nabi waaye bisub njàngum zikrullah bi nga xamante ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla fi yàgg lool te ànd ak woote na ko tey ji nag ñu ñëw fii nga xamante ne ah, nag ba tax na tey ñu ñëw ci banqaas bi nga xamante ne moom mooy infirmerie bi ah, ñu jàkkaarloog sunu sëriñ sunu xarit sunu lépp sëñ Abdoulaye Bousso Mamassa moom lañ ah, si nga xamante ne am na ko kon sàng bi dama nga nuyoo ak mbokk ñu doog a dugg ci laaj ak tontu yi salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax jiital ci nuyoo bi suñ tubaa Cheikh ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu di wéral ko di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan wala nga ñuy diglu ci jumtukaay yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar loolu di leen dalal jàmm fii ci fajukaay bi nga xam ne mu nekk ci jumaay Tuubaa di infirmière bi te daayira Muxaddamatul Xidma taxawal ko fi. daayira Muxaddamatul Xidma ñoom yore liggéey jumaa ji yaakaar naa ne loolu moom nekk na liggéey eh, jëf joo xamante ñëpp xam nañ ko mais lan moo leen xalaat loo bërëb bu am solo bi nga xamante ne moom moo am ci biir jumaa ji surtout. waaw euh, Cheikh safa ñu ngi leen yu baax nga xamal ne barab bii li tax ñu tànnoon ko yaakaar na 2017. lañ toogoon ba yàgg ñu xalaat ne barab bu toll ni jumaay tubaa waxtu nekk mbooloo yu bari di fi ñëw euh, ci jamono màggal ak lu mën di doon léeg dana xat-xat goo xam ne dana am ñoo xam ne duñ duñ duñ duñ mën a jékki-jékki dem ci fajukaay yi kon ñooñu war nañ leen a seet ñoo xam ne bu bu leen dara jalee irsan ci biir jumaa ji ñu mën leen a defar yu njëkk yi soog leen a génne. Euh, surtout nag bu dee lu mel ne gis nga bisu tey bii ak lu mel ne màggalu Tuubaa nga xam tey ku fi dara daal sax bu dutoon am na ci jumaa ji lay gën a doon jafe-jafe génn la jumaa ji kon mboolaan daayira Muxaddamatul Xidma xalaatu loolu ci atum 2017 ba ñu egg ci 2018 ba 2019 sax ci la gën a laase at yooyu yëpp màggal Tuubaa ak yooyu lañ fi daa faj waaye bi ñu demee ba ci jàngoro ji fi xewoon di Covid bi ci la ñu bari defee ne ci ko ubbi sax fekk ubbi nañ ko ko ñaari bi bu ndikkee nag importance bi mu am ñi yëgu ci wàllu docteur yi ci OMS ci wàllu anam yu bokkul yëpp tax ñoom ñoo xalaat ne barab bi barab bu am solo la biñ ko xamee loolu tax nag daayira Moukhaddamatoul Khidma ma taxawal ko fi ngir képp ko am jafe-jafe ci biir jumaa ji danañ la defal mm, yu njëkk yi ànd ko district bi ak privé bi ak jaayante ak pharmacie yi yëpp nga xam ñoom ñëpp dañ leen a lëkkale ba kenn ku ci nekk di ci jàpp ci wet ga nga ci mën a jàppe ndax ku ne xam nga ne jumaa ji moom day lu ne ku ne eh, kenn ku ci nekk am nañ la yéene juñ la yéene ci li fi am ci tuyaaba ba tax na dañuy fas yéene ubbi ko comme ni ngeen defee yéen ñii def ñëw rek jël ko loolu seen wàll la kenn ko ne wet ga nga mane di ci yëngutoo ñu jàpp ne gannaaw sëriñ bee waxoon ne ku ci feeñ feeñ bu faaw ku ci ne bu dootoo feeñ ñu fas yéene képp kuy taalibu sëriñ Touba euh, képp ku di julit nga fas yéene feeñ ci jumaay Touba ngir tuyaaba ji a am ku wax wàllum faju wax wàllum docteur ndax am da ak docteur yi nekk biir Touba wala état moo leen jox li nga euh, ko defee dañ ko lëkkale ak district bi nga xam ne docteur Ndeye Maguette ñu ngi koy nuyu bu baax ci taxawaayam bu rafet Euh, waaye nag ci yaatal gi mu ko yaakaal yaatal tamit district bi ba ci ba ci privé bi ba ci association pharmacien yi euh, ñu gëm ni ñoom ñëpp nday màggat boot leen ñu bokk liggéey ci barab bi nga xam ne barab jafe na loo xam ne lu mel ni am na nga xam ne ñëpp cee bokk liggéey ñuy nosu liggéey bu doon benn loolu tax ñu di ko def bu ko defee nag bu ñu jógee ñun waa daayira bi luñ mën a pexe ba ay garab am fi euh, luñ mën a fexe ba jumtukaay yi war a am ci barab bi am fi ñu deeri mu xa dekoon ñu di ko def la ca des ne ci wàllum faj nag ñu bàyyi ñi nga xam ne seen xam-xam te la jëm ñu jëm ci ñun moyen yi nga xam ne moom moom lañ fa war a nekke ak jumtukaay yi loolu lañ leen di jàppandalal waaye faj maag lañ ko war a def ñoom ñoom ñi ko yor te mu doon seen xam-xam ñoom lañ koy bàyyee. ñàkkul ay dawaayir yoo xamante ne ñi ngi ñëw di visit si bërëb bi ndax am na ñoo xamante ne ñi ngi yëkkati seen alal di ko ci def wala yéen rek ngeen ay xam naa loolu am na ñoo xam ne ñi ngi koy bëgg di waaj Euh, moo tax it ci wi dañ def occasion ci soññ ci ñooñu te xam ne barab bi ku ne xam na ne barab bu soxla waa ay garab la ci événement yu mel nii mi ngi mel ne bis bi ak yeneen yu mel nii yi fii xew ndax fi loolu ay juma ju jot mm, district de fi ñëw ngir ko am jafe-jafe ci biir jumaa ji doo am benn jafe-jafe ànd ak ambulance bi booree jël ñu yóbbu la nga xam tey fi mu boo ko doon pala tey jii tey dootoon si li ñëw. bee weesu ne euh, kañ la ñëwoon. Mm-hmm. noonu lañ koy def centre de santé yi bu ñëwut ajjuma ji ba léegi ñëw bu dee bismil nii nag ñoom ñëpp dañuy district bi dañuy renforcer ñoom ñëpp ñu àndoon ñoom ñëpp ñëw ci liggéey bi gis nga fi ci ñu taxaw nii bu góor ñi la wet gële am na barabu jigéen ñi boo génnee am na baas buñ fa def boo xam ne dañoo jublu secours fii ngir bu fii demoon ba am jafe-jafe baas bu bokk ci faj mi te loolu lépp ci la moo tax ci ma jumte xew-xew yi ñu jëm muy màggal muy gàmm muy ajjuma yi ñu ngi taal mbokk taalib bi yëpp képp ko xam ne la ñu bi d'ailleurs mu xadama mel ne laaj yi li ci ëppoon solo jàll na xanaa mooy laaj bu mujj bi rek moom mooy bis bi nga xamante ne Cheikh Mamadou Mountakha woote na ko muy njàngum alxuraan ak xasida ak zikrullah ak salaatu ala nabi ban yëg bëgg ñu jariñu yëg-yëgu li ñu sëñ bi sant lépp suñu jariñ la ndax mën na koo def nam koy defee bàyyi waaye bëgg nit ñi jariñu bëgg nit ñi dund suñu borom dund yonent sallallahu alayhi wasallam dund Sëriñ Tuubaa loo tax sax moom du mu tax a jóg loolu nag boo te jàll mel na daa jaar ci ñun rek jàll dafa war a am am njàngat ci noonu ñu xam ne ñu war di tudd yàlla lañ ñu xam ne ñu war di jàng alxuraan lañ ñu xam ne war di sikkar lañ ñu xam ñu war di jàng xasida lañ ñu xam ne ñu war di bernde lañ xam ne ñu war di bennoo lañ jëm ci luy taxaw liggéey Sëriñ Tuubaa bi loolu noonu ñu ko defee woon ajjuma jël weesu ñu taxaw fi waaye faj fi mbooloo mu baree bari ajjuma ji tamit ñu teel a xëy siwaat ànd ak noonu yëg-yëg boobu laa yëg ne Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg la ndax wax na ko bëgg dem rek ñi nit ki mën da ñàkk nekk ci dara soo nekku ci la war a nekk da nga nekk ci la wut nekk kon ñun sant yàlla lañ war a bu ñu yàlla may goo xam ne waxtu nekk lem ñu tànnal day gën ci ñun te mënaluñ ko suñu bopp te lépp sëriñ Tuubaa rek tax ak bëgg ñu kon loolu yëg boobu daal lañ ci am ni eh, ñun lay suñ njariñ njariñ nag lay ful la mooy saa bu doxee ba jóg rawat nag muy ndigal loo xam ne ki fi nekk Sëriñ Tuubaa ma ko jógee ku dib taalibe nga fa yéene lii bu ñëwee lu mu la mën a yóbbaale ci yiw na la ko yóbbaaleel ndax kat yi raw raw na yi dem dem na yi jàll jàll na te kenn ku nekk lay jëf jëf bu jaaree loo fa def lu baax dana la ko yóbbaaleel dencal la ko te Sëriñ Tuubaa ku ko liggéeyal nga xam ne yomal xiyam tax nga liggéeyal ko bala ngaa yëgee yomal xiyam dana la tàmbalee taral ci adduna gi ba nga yëg ni Sëriñ Tuubaa kon nag nañu gën a ba delluwaat sëriñ bi dund sëriñ bi ti boole sunu bopp nag ndax ci doolu yëpp ñu wax gis ni ñu ngi bëgg liggéey sëñ bi te lañ nekk na nguñ caa boole seen bopp rek rax nañ te leen lu sëriñ bi mhm. waaye lépp lu sëriñ bi jóg rek euh, doon kese sëñ bi euh, dana na ànd noo ko dana ci yomb mhm. damay faral di wax ne yaar yi lu xat du bàmba lu ñaaw du bàmba waaw lépp lu nit xatal rek rax nga ci la neen lépp lu ñaaw rek rax nga ci loolu sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatuhu sëñ Abdou Lahad Bousso Mama Sa moo ñu waxal waaye man sax dem naa ba dama xaw a mel ni xaw a kii parce que wax ji day mel ni ci xol la jógee te te bu jógee ci xol rek day dugg ci xol loolu daal mooy ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu tànd ak wér ñun njukkal li nga ko mën a defal mooy ñaanal ko mu yàgg fi lool yàlla wane kiraamam ci dundam gi parce que comme ni nga waxee man yëg-yëg bi noonu laa am parce que dama jàpp ne suñu classe gi ne dañoo xeebu eh, toog jotu sax di yàlla sax yàlla dogal na duñ ko am mu may ñu nii ngir ñu mën si di taamu jaamu yàlla loolu jàpp naa ne lu lu màgg la lan mooy kàddu tàggatoo yi waaw sant yàlla rek mm, ci fas yéeneen dooni julit dooni gor yu gore ndax ñun ñoo jaay suñu bopp Serigne Touba ni kii nag boo ko noo xam maa jëbb naa la saa bopp aduna ak àllaaxira adduna gi jeexagut te àlla tax laa jóg adduna gi war a fa am looy jàmbat looy looy xeemet ndax moomatoo sa bopp nañu gën a bàyyi xel suñu bopp te bàyyi xel dund sëriñ bi ku gis Cheikh Mouhamadul taxaa ci aas bi mu toll ci fu mu toll waaye dund diine lim ko jaral ci mooyoon yu mu ne ngir mu dund diineem ñun ñi nga xam ne am nañ kàttan war nañ ko war nañoo roy ci moom moomu ngir kattan yi ñu am ñu jëm ak dund Serigne Touba. dund Serigne Touba nag mooy dund diine Serigne Touba wuute wuute ak diine ku ne la dund Serigne Touba ak liggéey Serigne Touba mooy dund diine rek ndax lim fi woote lim fi samp lim fi doxal lépp diine rek la. kon nag ñun ndaw ñi na ñu gën a góorgóorluwaat sunu bopp taataan ci sunu njaboot ba xam ne lii këfe li yàqe bu ñu këf bu ñu yàqal loolu nag lañ ko war a suuxal nit ñi ci sëriñ bi wan leen lu wanu xam ne am nañu royukaay yu mat a roy ndax lii am ci bàmba ji bu kenn defe ne ay pexe la bu kenn defe ne ay para may nit pas-pas moo ci may nit kenn bépp nit boo ci nekk di ci la tuddee ba Sëñ Tuubaa na la fay sax fay ma doon moom masha Allah moom daal euh, wax ji yëpp dafa tënku ci Euh, lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhu xara wa inni ahmadu ndax mel ni moom nga jeexale muy Serigne Touba lépp léppam génnu diine léppam génnu diine nag ba tax na kon Cheikh Mamadou Mountakha tamit jëfam yëpp génnu diine kon ñu ñaanal ko mbàkkam yàgg fi loolu tànd ne jëlee nañ ko fii ci infirmerie bi nekk ci biir la gu mu toll ci ginnaaw loolu lépp nag ànd ak daayira bi di Moukhaddamatoul Khidma ñu taxawee taxawaay bu seen liggéey leen kattanu liggéey wax dëgg yàlla ndax li ñuy def jëf la joo xamante ne la waroon ñu taxaw tey ci jumaa ji di ko def ñu ñu koy defal kon jàpp na ne ñu ngi di sant di leen gërëm baax a baax jëf jooju di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa taala wa